fan la président prélèvement bi dem Abdou mbeng moo ko yor ak Bassirou Gueye ñoom ñi doon complot yor seen prélèvement mën ko substituer lu leen neex mun def lu leen neex ñu ne ma jox ma ba ñu defee dañu yóbbu benn benn clinique kooku ne leen mënu def analyse yi parce que jamono ji amuñu produit loolu yëpp mi ngi ci dossier bi ñu wëlbatikuwaat dem wëri beneen docteur bu jigéen kooku ne leen ah dinaa ko mun a def de waaye il faut ma yónnee ko fu ñu koy defee te bu ensuite suñu amul luñ koy comparer ñu dem fenn man ñàkk naa fulla ba jël sama deret naan maa ngi koy jox Serigne Bassirou Gueye ak Abdou Mbeng ak doyen des juges ak xawma kan may leen loolu du am dossier bi foofu la jeexe jox ma sa deret du ma la jox sa deret sama deret dossier ba jeex na kon ñaareelu laaj bi ma laaj moy ndax sekk nga ak ndaw si dara ko je ne te permets pas nga poser ma cette question que ce soit la dernière fois du ma ko nangu ndax sama dignité ak sama intimité ci dossier complot bu mel nii mayuma kenn mu ci wax man dans seize mois ñaan naa yàlla nekk président de la république Sénégal boo amee sa preuve génneel boo amul toppal na li ñetteel bi mooy ndax reconnaître nga dem nga fa ak yan date nga fa dem ma ne ko sëñ bi man du ma toog ci mbedd mi fu ma dugg daal di bind date bi dugg naa fi daan naa fa dem moom wax naa ko ñëpp dégg ko waaye ban date la ban date ak ban heure jàpp ko ñetti question yi di la ma doyen des juges posé amul beneen ñetti question la ma posé amul beneen la ca des yëpp mooy li ma wax man.